yi waaw waaw waaw ku bëgg yaay booy sa kuy sa yaay booy sa loxo kuy sa jaati yaay booy sa loxo sa loxo tàccu leen lii sama baay nga doomu baa ay waay ñëwal Leewtoo TV dañuy daan ngay daan daan a ngi da ngay daan Babacar Ali boy bi sey sàmmi la looso lam daan a ngi da ngay daan ana Babacar mi noo ke ana la ayaa ma ni ana Babacar yaay borom Rosso yaa ma ndikke yaa ma ndikke ku bëgg Rosso sa loxo may xool yow Rosso ay sa ku bëgg Rosso ay loola yaa ma ndikke loo yaa ma ilaha illallah ya minote ana minola ya malike ana sosai ana minola ya malike mola di la ay Babacar kaay ayaa ma ninkeey ku bëgg Moussa Ndoye sa loxo ci kaw sa loxo sa loxo sa loxo waaw ebolo eh, eh, la ilaha illallah wuy sa ey ey ey ku bëgg ak télé Dakar TV Hann TV bi di leen bëggee yéen ñëpp yéen ñi fi teew ñëpp quoi nuyu tam waa dëkk bi yëpp waaw di wax ne daal tey dama kontaan si dëkk bi quoi ndax gis naa niñ ma taxawoo dëkk bi yëpp génn nañ ñëw taxaw seen doom ñu waajal nag la kat incha allah. ngay bëri jour 4 avril jour indépendance fête bu nga xam ne mooy suñu fête indépendance fête nationale nga nekk xale war ci bëre jéey tëgg combat boobu. loolu lan nga ciy yëg ak lu muy def sew jour indépendance nga koy bëree. waaw loolu moom dama ciy kontaan bu baax a baax a baax a baax parce que bëre fête moom dafa neex quoi mais ñun c'est pas la première fois ñuy bëre avec moi quoi. tamit li ma ci gën a neex mooy dama ciy ànd sumay mag su mel ni Moussa Ndoye booy naag Pape Diop ak waa écrit bi yëpp ñoom caat quoi xam nga di wax ne daal incha allah liggéey naa loo xamante ne ci combat mosuma ko liggéey ci combat xam nga lenn kese laa leen deseel mooy jëli ko indi ko incha allah. jëli ko indi ko ndax jëli ko indi ko dina yomb comme ni nga ko wax parce que dab daan ngay bëreel de waaw xam naa ne moom laay bëggal dab daan lay bëggal mais man ak moom bokkuñu quoi lan moo te xam naa li ma daj ci ay moom daju ko loolu nga yaakaar non loolu moo am sax te incha allah bu ñu duggee ci géew gi bu ñu moom boo ñu xoolee yaa ngi fa di nga xam ma la wax te incha su bëree ma daan ko su xeexee ma duma ko yow ñaata combat nga def maa ngi si ay onze combat ñaata victoire maa ngi si huit victoire benn max maximum waaw te ay ndaanaan ñoo ma daan. maam numéro 2 ak Fourouz. ñoom rek la daan waaw. lan moo tax nga ne su xeexee nga duma ko su bëree nga daan ko foo teg loolu. ñaar yëpp maa gën a pare parce que lamb dafa yàgg daaw lañ ko waroon bëgg huit juillet ñu dem ba mu des deux moom mu ne dafa beeree sa xaw ma lan moo ko mbëkk. xam nga di ko ñaanal yàlla tamit loolu moo waxoon yàlla na nekk yàlla na am jàmm ak salaam ba bis bi parce que dafa yàgg te yow xam nga lamb yi ni mu demee bu yàqoo booy ñëwaat yaay waajal sa bopp ñëw xam nga li may wax daal mooy ne li may wax man fi ma ko teg xam naa ko incha allah liggéey naa loo xamante ne du ko moom grand combat bi sax xooluma leen. ci kanam lay xool. ci kanam ngay xool waaw. xooloo grand ci kanam ngay xool mais balaa grand combat bi ki nga amal affaire tey bu ñu la laajoon actuellement nii combat bi ay fan yu néew si des ban looy yëg sa yaram nii est ce que pare nga physiquement ak ci côté mental bi tamit est ce que fi mu nekk nii pare nga bu baax. macha allah pare naa ci yëpp combat daal aw ma ci benn lu may xalaat aw ma ci lenn lu may tiit côté yëpp physique doole xeex. lépp pare naa ci bu doon tey tey nii nii nii di sax pare naa pour dem parce que ñi may kontaagal ñoo ko doole fuuf tolloo wul ak Moussa Ndoye tolloo wul ak Boy Niang tolloo wul ak ñoom ñoom Pape xam nga ñoom Ablaye xam nga gars yi quoi xam nga tolloo see kenn doole moo dafa li ngay bëre dégg nañ ne sa tête de film muy Moussa ci lay bëre yow yaay ubbi baal bi loolu tamit est-ce que du doon pression si yow non baal bi sax tijji nañ ko ba pare parce que caatu caatu yaraaf bëgg na tijji ko man damay ñëw yàqali Dibo ñëw leegal Moussa Ndoye ñëw saayi ko ñoom booy naa gars yi ginnaaw ñëpp ñëw quoi ak waa waaw xaadim fay mu ngi war a bëgg tamit quoi waa ñu ñëpp xaadim fay am ba combat man Moussa Ndoye Dibo di ñaan tam ñeneen ñi si ñëpp am combat quoi kon daal su ma la déggee mois d'avril bi seen mois d'avril nga ko bëgg def mois d'avril daal ñoo ko moom incha allah ay ndam koy bëree ba saison bi ne muy jeexee incha allah bu neexee yàlla ak yonente bi leneen daal mooy ne dafa am ñoo xam ne dañ may jàppale ci combat bu baax a baax a baax xam nga ku si mel ni yoo xam nga sa doomu nday la Serigne Ndiour Italie daf ma jàppale bu baax a baax avant combat après combat daf may taxaw xam nga ak tamit monsieur le maire Babacar Meng da see jàpp bu baax a baax a baax te yabal na fi délégation dalewaat mention spéciale aw ma fayam dalewaat lépp lu ñu nekk dalewaat da ciy taxaw xam nga ak suñu yaay yi si bi yëpp xam nga ñoom maire Aminta Laax xam nga maire Ami Sarr xam nga ak waa dëkk daal yëpp suma mag yi tamit ñoom abo xam nga ñoom Ibrahima Diamé dansé sama ñoom Ba Moussa Papa Gueye ak tamit suñu association bi nga xam ne daa sosu fii quoi ay jeunes la yoo xamante ne ni dañ ñëw taxawuñu pour ñu jàppale ay jeunes yoo xam ne ñu defaluñu leen dara fayuñu leen defuñu leen tous ñu volonté wu xam di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Ado xam ak Assane Balla Gueye quoi ak sumay kët kët Aliou Sarr Mouma Sow Souleymane Diaw Mass Box man daal kontaan naa trop surtout maa nag waa dëkk bi dëkk bi yëpp sant naa leen yaraax yëpp ñu ñëw ak ñu ñëwul ak ñëpp sant naa leen bu baax a baax gis naa niñ ma taxaw ñoom sëriñ seen ñëpp jàpp nañ ci Tafa Diaw suma gars yi nga xam ne booba léegi ñu ngi si jàpp ko ku ma limul rek dama juum quoi mais daal kontaan naa si dëkk bi di wax ne daal incha allah la kat jëli ko indi ko incha allah di nuyu sama mbokk soose nag maa di man di ko biyel ngal kontoon la ngal jaay la al dima jikandoo ala dowa min keñe ngaa jële al dowa lafañe gambinkool biyel man di nagin soo kon tubaako te ñombaato banii bamba koo Alduwaa Keñe foog nga fi teewal Sodo ak sama mbokku taalibe yi ñu nekk ci weeru màggalu sëñ Fallou xam nga di ñaan yàlla ñu dem si jàmm ñëwaat si jàmm ak Porokhane bi romb quoi ak Tidiane yi Laayane yi xam nga Ndiassane ñëpp bëgg nañ ci gars yi quoi. waaw maa ngi gën a bëgg si yow. jaajëf.